juróom-ñaari baat yoo xam ne sëñ Babacar Si moo nu ko daan jox ci feebaru mbas su ñëbaan mu ne nañ koy jàng ci jàkk yi fatiha ba mu jeex nga jàng ya qadiran ya muridan ya qaiman bi nafsihi hada maradun jadidun fakfina min basihi mu ni boo ko waxee juróom-ñaari yoon yéene ci sa njaboot gi ko mënula jàng yàlla mën na def feebar ba du yegsi ci yow wala bu yegsee du يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك أن لا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار فمن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في الدنيا وأخرى لذاك توسلنا إليك بكل ما أتتك السماء محتلة بصعودها بارك مكة بارك مدينة بارك فاس بارك تيوان بارك الشيخ الحاج مالك بارك الشيخ juróom-ñaari baat yoo xam ne sëñ Babacar Si moo nu ko daan jox ci feebaru mbas su ñëbaan mu ne nañ koy jàng ci jàkk yi fatiha ba mu jeex nga jàng ya qaadiran ya muridan ya qaiman bi nafsihi hada maradun jadidun fakfina min mu ni boo ko waxee juróom-ñaari yoon yéene ci sa njaboot gi ko mënula jàng yàlla mën na def feebar ba du yegsi ci yow wala bu yegsee du